dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen i kaay ñu xëyandoo yéen i kaay gii di réew mi quotidien ci xëlim ak Assane Samb daan nay dikk ci lu jëm ci aide alimentaire bi nga xam ne état bu Sénégal lu toll ci juróom benn fukk ak juróom-ñeent ci ay milliards la génn ngir ñu jënd woon ko ak dund séddale ko askan wi jamono ci ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllu wu daan nay wax ne séddale gi daan nay jeex journal bi nee na dem na lu toll si ñetti weer ngir ministre bi wax ne séddale bi daan nay jeex waaye nag jafe yi nga xam ne maanaam na ci lu jëm ci wàllum séddale dund gi maara am na ñoo xam ne bu ñu doon xaar na nga ni jamono ji xàddi nañu ay jafe-jafe yu rëy moo ci am ci lu jëm ci wàllum marché yi ak lu jëm ci wàllum séddale gii ndax am nañu bari ñoo xam ne maanaam mbirum ceeb bi dañu koy dégg rek waaye ak agsiwul ci ñoom te nag ñi nga xam ne ñooy comité na suivi bi jamono ji askan wi maanaam ñoo ngi xaar ngir ñu def am rapport boo xam ne danañu gindi askan wi ci wàll wi journal bi nee na en tout cas mbir mekk ni ñu ko doxale am na ci ay lënt-lënt yu bëri ak yeexaange goo xam ne maanaam daan ci am ma ngi ci yéen kaay gii di réew mi quotidien Assane Samb moo ci xëy ci lu yaatu ba tey ci biir yéen kaay di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal na liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci ëttu attaquant yi ñoom dañoo mer ba futu mer ba maara detaal yi daal nañuy xàppati lu toll si ñetti fan yi grève ñoom nag la ko waral nee nañu am na loo xam ne dañu ko siife woon ak gouvernement bu Sénégal te ba léegi ni France dali xëddéen waaye nag li nga xam ne moo leen gën a métti ci mbir mi maanaam mooy ministre maître Malick Sall mi nga xam ne dafa noppi na pata ba ñu yëy yàbbi ci mbir mi ñi nga xam ne ñoo liggéeykat yi ñoom nag nee nañu ministre bi dafa dem ba amatul ay argument yéen a di Vox ñu xëy fekk fa Serigne Moustapha si mu daal di fa yëkkati ay kàddu la mu xamle nee na réew mi di Sénégal dina jeex-jeexite ba muy tuulee musiba ma bakumba gu rëy goo xamante ni ñëpp ñoo si teg seen bët dina am ci réew mi wax na ci lu jëm ci mbiri coronavirus daan nay wax ne mën nañu ko méngale ak soldat boo xam ne yàlla suñu borom moo ko fi wàccee Serigne Moustapha Sy daal di wax ne ñi nga xam ne ñoo fi nekk doon tere ñu ubbi jumaa yi ak jàkk yi ñoom ñoo ngi doon dajaloo te nag maanaam matukaay yi nga xam ne jël nañ ko bay def ay conseil des jël ko bay dem assemblée nationale matukaay yooyu mënoon nañu koo jël ci maanaam jumaa yi ak jàkk yi Serigne Moustapha Sy wax na nag ci ayug Macky Sall gi bëri na ay kilifa yoo xam ne maanaam faatu nañ kilifa yu génn àdduna te nag lenn warul lu ko lu fétiche gu bëri gi nga xam ne maanaam moo am ci réew mi Serigne Moustapha Sy wax na ci mbiru Serigne Pape Sy lu jëm ci wàllum transport bi dem bi ak dikk bi ñi nga xam ne ñooy waa AFTU ñoom nag dañu see bëgg a yokk maanaam ci paas bi lu toll ci fukki dërëm ak ñaar fukki dërëm ñoom nee nañu seen bus yi tata yi maanaam kenn dootu ko surchargé maanaam dootuñu nangooti ni taxaw yéen a kaay gii di Vox Populi maître Omar Youm mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum transport bi nee na loolee nga xamante ni ñoom la waa aftuy wax bu ñu ko defee maanaam ay daan dina lalu tegu ci seenu ndodd ndax amul benn yoon boo xam ne waxtaane nañ ko yéen a kaay gii de la na xëy ci lu soxal wàllum remaniement ministériel bi nga xam ne njiitu réew mi di président Macky Sall ma ngi koy wàcc bu yàgg ba tey ak lan moo tax mbir mi yeex ci la yéen gi ñëw réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Cheikh Omar Sy mu séq waxtaan ak waa réew mi quotidien waxtaan wu yaatoo yaatoo wax na ne jamono ji gouvernement bi day mel ni maanaam juróom benn jàpp juróom-ñaari ministre rek moo fi nekk wax na ci lu jëm ci ci wàllum kéwél yi nga xam ne Abdou Karim Sall doxale na ci aw doxalin woo xam ne ñu bëri ŋàññi nañ ko wax na ci lu jëm ci coowul suuf li nga xam ne jamono ji moo wulee ñaay ci réew mi wax na ci kàddu yu Moustapha Cissé Lo yi waxtaan wu yaato yaatu la séq ak journaliste yi réew mi quotidien yéene kaay gi mu ñu xamal naan ñu Moustapha Cissé Lo yóbbu na doomam yi dik division des investigations criminelles la waral mooy njombeegee girawaaligée ba mu amee doomi Moustapha Cissé Lo yi dañoo nangu téléphone yi téye ko ngir bañ seen bàyyi communiqué loolee si la leen Moustapha Cissé Lo yóbboo si yoona yéene Times mu xëy di ñu xamal lan ñu bi nga xam ne banque def na ko ci fukki réew yi nga xam ne ñoo gën a riche ci Afrique Sénégal ba léegi nii ma ngi xaar Mamadou Diop Decroix Mame Diarra Fam Abdou Aziz Diop ak Mor Talla Kane ñoom dootuñu ko defati député yi dañoo demoon ca diwaanu Ndengler ngir xool suuf li nga xam ne moo dox diggante askan wa fa yeewoo ak promoteur bii di Babacar Ngom waaye ba ñu demee aw visite lañ fa fekk mu daal di génn ab pistolet na leen fii amu leen sañ-sañ dugg fii yéen a kaay gi mu ñu xamal lan ñu gendarmerie nationale jamono ji mer nañ ba maara day taali ndax coowul Babacar Ngom li dañ leen ciy tudd wax jox nañ leen lu toll ci fukk ak juróom benn million ngir nag ñu surveiller woon li nga xam ne mooy suuf si journal bi nee na conférence de presse bi Babacar Ngom doon nga xam ne mooy colonel Issa Diack loole nag métti na lool ñi nga xam ne ñooy waa gendarmerie te colonel Issa Diack moomee moo takk doomu Babacar Ngom maître bu Kunta Diallo la mu xam ne nee na Babacar Ngom ak suuf si xam ne jox nañ ko ko ci ndengaleer amul lenn loo xamante ni tegu na sa sa yoon maanaam lenn jaaduwu sa askan wi nga xam ne ñoo dëkk ci laax niki démb si dimanche ji ñoom doon nañu am ab dox doxum ñaxtu nee nañu 1960 ba léegi amuñu courant amul ñu ndox te amul lenn loo xamante baaba Babacar Ngom defal na leen ko ba pare bëgg aakimoo seen suuf ñoom nee nañu duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg saltige bii di Koromak Faye moom nag la mu xamle nee na Babacar Ngom na jox seen suuf ci ni mu gën a gaawee Ahmed moom ni mu ko jàppee ak jaay doole yéen kaay gi nee na Babacar Ngom ak scandale ak tojaange yi nga xam ne maanaam moom la nekk ci réew mi koy protesté maanaam kan moo koy làq askan wi nga xam ne ñoo dëkk ci lax ñoom nee nañu fukki fan ak juróom ñaar nga xam ne moom la ñu dëgmal dinañu amal ab marche ci Dakar yéen a kaay gi du source a mu ñu xamal naa ñu député maire bii di Ibrahima Khalil Fall mi nga xam ne mooy maire bu Kër Sambakan moom tim ay tojaange la def ndax lu toll ci deux cent cinquante hectares la dagg Kër Sambakan yéen a kaay gi du sunu làmb xëy ci combat guy gi rëg-rëg bi nga xam ne ñoo ngi koy jàpp jonge ba léegi nii journal bi nee na combat bi taxawagu la stade yéen a kaay dikkal ñu ci championnat bu Espagne ak na course bu tar bi nga xam ne moo dox diggante Real Madrid ak FC Barcelona tey jii nag Real Madrid dina dem ci Grenade ngir nag laale ak moom waaye nag su fa amee victoire mën nañoo jàpp ne alxamis bi ñu dëgmal Real Madrid mën naa jël championnat bi waaye match bu tar lay doon ndax ñi nga xam ne ñooy waa Granada ñooñee dañuy bëgg a gagné ngir dem Europa League Real Madrid bëgg a gagné ngir jël championnat bi Antoine Griezmann moom pare na ci championnat bi ndax dafa blessé journal bi nee na Ramos ak Carvajal mi nga xam ne dañu leen a sanctionné woon ci match Alaves bi tey jii danañu dellu siwaat diggante Real Madrid ak Granada journal bi nee na li am ba des nekk match bu yomb